Mamadou Mohamed Ndiaye ci la ngeen jëf li wala fi naan màggatum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam fa la assemblée nationale mujjee ak président de la république Bassirou Diomaye Faye ubbi l'observateur ginnaaw leetar bi ko assemblée nationale bindoon moom njiit réew mi defaloon ko ci proposition yu soxal modification yi war a def ci règlement intérieur assemblée nationale délai fukki fan bi président amoon ngir tontu ca délai ba jeex na depuis bërki démb te ba léegi président tontu loolee moo tax assemblée nationale jël ay responsabilité mu convoqué biram tey jii ci ngoon ngir ñu wéyal procédure bi ñu tàmbali woon mu ñeel coppiteeg jooynde a ngir jooyandi règlement intérieur ba Les Échos nañu délai fukki fan gi président amoon ngir tontu ci lettre assemblée nationale ba ba jeex na te jomaay tontuwul moo waral assemblée nationale jël cëggal gu yam convoqué bureau tey ji ci ngoon ngir ñu xool kañ la ubbi ab session extraordinaire buñ ci noppee semaine bii di ñëw ci la jubli ci modification yi ñu war a indi ci règlement intérieur bi élection législative yi ñuy séntu ci réew mi suur saa doon fédération urbaine bu Ndar ne ci journal bu ñu yeggee ci yooyu législatif Karim Wade mooy doon tête de liste nationale bu parti démocratique Sénégal mu dool ci ne Karim ak Jomaay Fay dañuy wax téléphone léeg-léeg te li wér mooy bu Jomaay ak dee waxtaan li ñu mën a jàpp mooy lu ñu mën a waxtaane président Jomaay dina ko yeggee Ousmane Sonko muy président bu Pastef président bu Sénégal di Bassirou Jomaay Diakhar Fay l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne dina teewe tey ji ci àjjuma ji mu njëkk mu conseil supérieur la a kay bi nañu ginnaaw ay yu ñu ko jàpp dàq ko ndax ñàkk jot su gu président Jomaay ñàkk jot tey jii ci la koy def Vox Populi di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba dañuy wax ne ginnaaw chamboulement di coppite yu mag yi ñu gis ba yàggul ci administration territoriale bi maanaam ci gouverneur yeeg préfet yeeg sous préfet yi ku yóbbu séntu lu ni ci magistrature bi ginnaaw ndajem conseil supérieur de la magistrature gi war am tey feneen fu ñuy séntu ay chamboulement ak i remplacement yu mag le ñeent fukki diplomate yu ak i conseiller ci ñoom wàññi nañu ci ambassade yu Côte d'Ivoire yu Gambie yu Angleterre yu États-Unis ak consul général yu Marseille yu New York bu Jidda ak bu Naples Kigali ga ca Rwanda moo nar a doon tukki bu njëkk bu bitim réew bu premier ministre Ousmane Sonko l'Observateur moo ko bind ba di ñu xamal ne président de la République Bassirou Diomaye Faye moo ko bëgg a yónni ci Rwanda moom premier ministre Ousmane Sonko ngir mu dem représenté ko ci prestation de serment gi président nañu nañu premier ministre Ousmane Sonko joxar bi na baaramu tuuma wàllu corruption bi nee na guerre gi am ci secteur transport bi bokk na ci liy jur accident yu bari yi am ci réew mi ak visite technique yi ñuy maslaaka taf yëngal premier ministre Ousmane Sonko nee na léegi accident bu ñu déggati ci réew mi danañu ko càmbar ba xam li ko waral bu ci ay daan waree ñu def ko ci sumnal les économies ci conseil interministériel bi ñu doon def démb ci wàllu transport Sonko ñaawlu na fa corruption gi am ci kaw tali bi bu nuppi xam ne fa ay mesures yu ñu fas yéene jël ci accident yu bari ngir lijjanti ko yoon di justice ak li mu doon lijjanti démb mu di layop Aminata Touré ak Mansour Faye mi ko porté woon plainte ndax doon ko tuumal ne Aminata da koo sosal ba taxoon mu yóbbu ko ca yoon yoon àtte na leen dem Sud Quotidien nañu yoon dafa relaxé Aminata Touré au bénéfice de la bonne point actu nañu ay avocat moom Mimi Touré ñoo li ñu naan ci wàllu yoon excuse de bonne moo tax ñu relaxé Aminata Touré au bénéfice de la bonne foi maître Ousmane bokk ci avocat yu Mansour Faye yi ni ci xët mu njëkk journal bi tribunal bi constaté journal bi joxe démb li muy signifié mooy juge bi dafa jéggal Aminata Touré Alhassane moom la journal Tribune xëyee ci xëtamu njëkk journal bi nañu dañu koo def dage bu ministre de la pêche moom Alhassane Diop laata muy jël fonction ñu wàccee ko li tax mooy dañoo dem ba ci biir gis ne moom waa ji Alhassane Diop bokkul ci parti Pastef journal bi nañu jàppale gi doon jàppale waa Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi moo tax ñu def ko dage ci ministère de la ko jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokkeen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi programme bi di wéy euh, ci kanam buñ jeexal rek euh, Oustaz Modou Fall ak Pape Cheikh Diallo ñëw seen émission Midi Plus ñu ngi leen di ñaanal kenn dul jàmm aljuma mubarak